Mm. mbokk internet Medina TV comme ni leen koy waxee saa su ne tey ñu ngi fii nga xamante ne ni mooy Fass si benteñe bi waaw ñëw seet si ki nga xamante ne ni mooy la surlendemain de la tabaski moom nga xamante ne ni mooy LP ñu koy woowee Lamine production moom nga xamante ne ni moo woote li nga xamante ne ni bis bu rëy la le surlendemain de la tabaski la nuit di sañse nag la ko tuddee nee na na sañse yi génn na lépp génn ñun ñu ñëw si fii nga xamante ne ni mooy Fass a seet si nga xamante ne ni doomu Fass bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay jaar. tur la. man la Zab. Zab bu Faas Zab bu Aada Faas moo nee nii Zab bu Faas ñu bëggoon xam nan ngay waajalee li nga xamante ne mooy la nuit du sañse. waaw nuit sañse daal ñu ngi koy waajal ngi koy ñu ngi koy ci lu rëy maanaam ñun ay doomu Faas lañ doomu Faas moo xewle bu doomu Faas sax maanaam xale bi xale xale xale Ndakaaru la waaw ñun daf ñoo woo ci bés boo xam ne nuit sañse la le 23 juillet à ne pas rater ku ko rater it dootoo demati xew waaw bii moom waaw bii moom ñan ngay woo si guddi si ñëpp laa ci woo ñëpp laa ci woo maanaam ku jëm ci Fass man maam Fass ku demul ma dama lay bàyyi maanaam doomu Fass moo aye lu jëm Medina Gueule Tapée fépp maanaam Ndakaaru daal dafa war a fees léegi ñu bëggoon xam nan ngay waajalee bis bi nga xamante ne ni LP yow la def sponsor number one. waaw bés bi moom dañ si am contentement bu baax di ko waajal nag franchement parce que LP kenn la si ñun quoi te lépp lu mu nekk tamit ñun dañ si bokk quoi xam nga waaw ñu ngi koy waajal daal comme ni ñuy waajalee bés yëpp quoi incha allah waaw parce que LP moom kenn la si ñun quoi incha allah dinañ si taxaw daal comme ni ñu si war a taxawee quoi. comme comme gars yi ni ñu koy defee rek di si woon daanaan yëpp quoi ah. parce que LP moom daanaan la xam nga moom bu wootee gars yi ba day ñëw quoi surtout waa Fass yëpp quoi Fass Colobane Gueule Tapée maintenant surtout xam nga saa bi yëpp daal bàyyiwuñ fenn quoi waaw di woo gars yëpp quoi ci bés bi incha allah parce que kenn la si ñun quoi bésam ñu si taxaw comme ni ma lay waxee. ak Mamadou Sarr bete bete baa ngi. kontaan di leen gërëm di rafetlu li ngeen def ni jël lu mel ni la grande nuit du Sagnsé ngeen tuddee ko suñu lider bi nga xamante ni mooy Cheikh Omar Sy Jamil ñu décidé ko ñun accompagner à la tête de la mairie de Colobane Fass Gueule Tapée dina dina nekk événement boo xamante ni vraiment dina am succès ndax waa grande force citoyenne ku leen woo ñu fekk si la je suis sûr que dina nekk événement boo xamante ni ñëpp dinañ ko fàttaliku mu nekk seen première édition te mu nekk loo xamante ni incha allah ñun dinañ leen accompagner ànd ak yéen ba seen vingt cinquième ba seen trentième édition lenn rek lañ leen di suwete au nom de tous les membres de la coalition GFC au nom de notre leader Cheikh Omar Sy mais aussi au nom de toute la population de la commune de Colobane Fass Gueule Tapée on vous remercie li ngeen def ni nekkul lu ndaw ci ñun te su bés baa di ngeen xamante ni dina xumb te dina neex incha allah waaw ñun nan la ñuy waajee bés bi xam nga tamit euh, lii du guléet ndax bës bu nekk tuddee nañ ñu ko fi tout dernièrement rek tuddee nañ ñu bës bu mag ñu dem fa am na nuñ fa demee am na nuñ fa taxawee am na loo xamante ni def nañ ko fa te feeñ na ci internet bi ñëpp gis nañ ko mais seen bés yéen ñun dañuy indi beneen doxin bu spécial bés buñ ci yeggee incha allah ak jàmm ak salaam ba di ngeen xam ni GFC ñëw nañu. waaw asalaamaaleykum ah ñu ngi nuyu ñëpp ah, di jiital si nuyo bi suñu kilifa muy Cheikh Omar Sy tamit di rafetlu tey accueil bi mu ñu accueillir fii tey di am contentement ci moom parce que tey sànq rek rapporteur am li ma dégg mu wax tey dafa dal sama xel. parce que ba mu ba mu jëlee nu mu tudd sax euh, mooy plan politique am boole si jeunesse bi teg leen ca kanam loolu damay nekk loo xam ne dama koy rafet lu baax baax ñun nag structure LP Events ay xale lañ ay ndaw lañ ñoo xam ne ñu ngi dëkk commune Fass Colobane Gueule Tapée nekk di yëngu si wàllum culture donc tey suñu gisee kay ku ñu si mën a jàppale rek tey dañuy dem ci vers moom tey waxtaan ak moom tey suñu projet euh, di am contentement tey ne li ñu ko tuddee tey du du nekk fii yem ak moom mën naa wax ne gis nañ tey li muy def si jeunesse Fass tey gis nañ tamit li ñuy def si commune bi di am contentement baax a baax a baax di ko ñaanal mbébétam li mu bëgg moo ko xam sunu boroom defal ko ko bu baax a baax di ko wax ne nag ah, waa LP Events si tey si bi ñun bëgguñu si xaalis lenn rek lañ ci bëgg mooy nga jënd nga jënd billet yi may ko jeunesse Fass parce que bëgguñ xaalis boo jël di ko jël yëkkati ko teg ko suñu loxo ñun loolu amaluñu njëriñ li ñu amal njëriñ moom mooy ko na soirée bi réussir ce soir bi suñu réussir mooy ñu sentir ne lii waa Fass ñoo ko moom commune Fass Colobane Gueule Tapée ñun loolu rek lañu bëgg mooy nga jëndal ñu billets yi ah, bul ñu ko jox sax nga xool sa sa entourage ngeen koy jël ngeen maye ko jeunesse bi pour ñu mën a ñëw fekkee soirée boobu noonu waaw loolu laa amoon lu may wax di ko remercier bu baax a baax di remercier aussi suñu grand Pa moom suñu conseiller la lépp lu ñu dugg bala ñu si dugg ñoom dañuy ñëw laaj ko xalaatam mu nekk la ko a baax ko wax ne daal lii moo nekkoon vlog bi buñ ko indil tey bëgg mu jëndal ah bu may ko jeunesse bi parce que tey soirée bi soxlawuñ si xaalis dañoo bëgg jeunesse bi ñëw ñu xam ne tey ñu nekk yeneen communes yi ñu fa nekkoon di organiser seen i commune di ñëw tey Fass Colobane tey Gueule Tapée am na am boo xam ne capable nañ loolu am nañ tamit leader yoo xam ne man danañ leen mën a gunge si loolu waaw ñun daal loolu la ñu ñaan quoi mu jëndal jeunesse bi bi ñëw teewee événement bi ayca ñu dema ah, ba léegi ñu ngi doxal nekk si li nga xamante ne ni mooy parrain wu événement bi nga xamante ne ni LP moom la teg ñu la sur surlendemain de la tabaski mu nekk la nuit di Sañse événement boobu nag ba léegi ñu ngi woyal di dox si ñi nga xamante ni ñooy parrain yi ak partenaires yi tey nag dañoo ñëwoon seet si benn partenaire ñu nankaan Petit moom mi nga xamante ni moom moom pour lavage macha allah di raxas oto nekk fii si Médina Rue 30 bi nga xamante ne ni mooy Médina bi donc dañuy dugg woyal waxtaan ak moom bu wax ñu ak ana naka lay waajalee lii nga xamante ne ni mooy laa nuyu di sañse sama mawti caméraman bi soo paree ay ca doxalan di dem <laughs> noonu naa la ngir Aïcha ba tey ñi nga ñu wëyal si ñi nga xamante ne ni ñooy partenaires yi ñëwoon seet si ki nga xamante ne ni mooy Petit borom promo lavage Petit ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum adduna salaamaaleykum waa maa ngi nuyu waa bu baax a baax di kontaan seen teewaay te fii ci biir pro lavage quoi. Hmm. léegi Petit ñu gis ki nga xamante ne ni mooy LP teg benn événement bu rëy ñu naka laa nuyu di sence au Sorano le surlendemain de la tabaski mu jël événement bi ne da la ko partenaire jox la lépp noo noo gisee loolu. waa événement bi ñoo ngi koy waaj ñun waa pour lavage ñëpp parce que pour lavage tey nekkatul lu ndaw ci réew mi Sénégal tout le monde xam na lii pour lavage ñoo ngi waaj muy LP tamit di suñu xarit di suñu bu amee événement comme ni ñu amee événement di ko ci woo bu amee événement bu ñu ci ñun dañuy def tout pour jàpp événement li ñu mën mënul bu événement bi réussir parce que mooy suñu réussir parce benn ndaw la boo xam mu ngi def daan dooleem bu réussir ci dëkk naa ne ñëpp la réussir réussir ñëpp la daal moo tax LP bi ñuy événement wax ñu ko ñun ñu pour la base peut-être lu bees la yàggul fii ci biir maintenant mais moo tax ñu sukkandeku ne ko bés bi jàppal na suñu bés la ñu si def lu mën ak lu mënul ñun waa pour la base ñëpp daal. waaw kontaan rek kontaan comme kontaan yi parce que ñun bés moom xam nga miin nañu bés yàgg nañu dem ci ay bés mais daa rawati bés bi muy suñu nawle di su jeune comme ñun am ambition jël artiste yóbbu fu toll ni Sorano moom tey loolu kontaan la ci ñun quoi parce que tamit bu ko mu jël xaalis def ko leen ak leen mais dafa jël xaalisam jël artiste def ko événement événement am def bi ñu si woowee dañoo kontaan ne ko yow bul moom bu ko neexoon bu defee dara duñu tàggu te teewul ñu doy nekk si biir parce que bu dul dara dunu nan ko quoi ak moom aussi euh, kontaan bay ñëpp société yi bëri nañ ci dëkk bi ci nit ñi bëri nañ ci bi mais mu am taamu teg pour l'avance lépp pour lavage laa ci àndal ak ñeneen ak ñeneen ah ñun tamit ñu nangul ko loolu ne ko ñun tamit dinañ si ànd rek parce que pour lavage euh, société la boo xam moom fi ñu maintenant di liggéey di def voiture jaay voiture loolu rek dafa doy ci bés parce que bés la bés xam ne bés bu ma fonk la nag am na mais bés bii bés parce que LP c'est samay am di jàmm ñëpp leen woo maintenant bi yëpp parce que pour lavage xam tamit ñoom am nañ tey part responsable ci biir maintenant parce que tey man tey en jeune boo xam ne tey dafa ñëw tamit euh, tijji benn entreprise fii ci biir maintenant loolu tey waa maintenant am na lu war a def waaw parce que ñun euh, showbiz bi yàgg nañ si du te benn fan du ñaari fan chaque jour dafay ñun ñoo samedi dimanche ñoo ci showbiz bi tey bu demee tey bon gis boo affaire boo xam ne tey lii jege nañu te pour la base nag biir Médina tey ñun duñuy sot te sot fa nga dëkk moo gën a neex moo tax ñu war a sotle LP incha allah ci bésam boobu noonu ñu jëm ma dégg ngeen ne da ngay def location oto xanaa jour ba oto yi war nañ bëri de. waaw pour l'avance day def location day def vente day raxas moom set bu mokk tak lépp lay raxas parce que tey ay employés ñoo leen di liggéey nekk ay ndaw moo tax man gis na man lu ma gëm a gëm doomu aadama nit kuy liggéey parce que liggéey mooy yow nga di yor 100 francs 100 francs nga koy téye di ko ay millions man loolu laa nekk doomu aadama te loolu nag tamit tamit si laa gëm quoi moo tax tey fu ma egg loolu moo ma fa egg lool ku ñu bi moom oto yi na bëri incha allah parce que Medina TV fas naa ànd ak ñoom nag sponsor leader yi Feu de Lavage moom fi mu toll nii nii nii xiiram la yor rek comme ni ko gars yi di waxee pare pour liggéey pare pour jàppale ndaw parce que ay doomu Medina ñu fi liggéey ñeen ak ñeen waaw ginnaaw loolu xam nga du ñuy sant daal baax a baax parce que bu ñu jógee Bambey ñëw métti woon na yoon bi na day métti petit promoteur koo xam xam ñu ci làmb ñu def ay événement jëlaat Iba Mar Diop le 21 décembre boo ma def benn journée demaatuma ci làmb bu pour ñi xamul quoi ñooy waajaat làmb incha allah beneen journée ak beneen parce que pour la base tar na pour jàppale mbër yi ñëpp ñi nga xam ñooy Sénégal di liggéey ku am événement boo ñëwee pour la base tar na pour parce que loolu moo ñu fay quoi parce que nee nañ amee 100 francs sax ñi loolu moo gën quoi oui. joli yaayu Allah